je pense que tey fi dajale ndaje bu am solo la te ñi nga xam ne ñoo jóge ba Lambaye ñi Castor ñi bel ñi Maristes Saint-Louis Thiès ñoom Pa Moussa Kër Massar kenn ku ci nekk da nga bàyyi sa pour ñëw et que je pense que ku bàyyi sa pour ñëw nag réew mi moo la tax a comme ñun ñi nga xam réew mi moo ñu tax a ñi nga xam dañ fay ma leen di gërëm bu baax euh, di nuyu Sadio Maajo <laughs> Sadio Maajo <laughs> da ko Sadio Maajo mi nga jërëjëf jërëjëf Sadio Maajo ko <laughs>

dajale ku ne dajale itam xeet bu ne un jeune une solution damay faral di naan silmaxa silmaxa moom moo doyloo njàccaar ba tax yàggul yoon di nga dem ba dellusi danga nga teggi ndërmeelu waa jaa ngi nii li tax loolu ñun dañoo tourner def le tour di Sénégal dem ñëw nekk ay jeunes gëm sunu bopp liggéey biñu démé ba ñëw nak xamné ne liggéey mom déclaré wul candidature am waxul sax né dama bëgg dem élection heure buñu ñu jaaxlee dem wax ko ci lu jëm ci askan wi mu jox ñu ñu dem jox askan wi donc koku bu démé bo na ñëw situation réew mi daf ma préoccupé dama bëgg jog man taxaw xéxal sama réew ndaxte réew mi kenn ku ci nek dang ci am part de responsabilité ndaxte bu toogee këram am li mu am di dundal njabootam di dem entreprise am di dem di ñëw ne réew mi sama yoon newu ci dama koy tëkkaleeg méngale ko ki nga xam ne day lekk ba pare sànni ci mbedd boo xam ne la mbedd mi mbedd buur la. te xamul ne mbeddum buur alalu buur bu fekkee ne lu la neex rek def ca te inconscient war nga xam ne buur moomu la mu yore yow la ko téel waaye ñi fi nekk. téyelatuñu kenn seen bopp lañ téyel ak seen njaboot li jéen wax léegi léegi nit dana taxaw ne man je suis apolitique wala bàyyi woon naa politique xam nga buñ la naxee perto da ngay am expérience. expérience moo tax ñi nga xam ne nax nañ leen yàlla jël leen boole leen ak ki nga xam ne moom man moom lay woowee moo njaay no problème ndaxte boo amee problème mu régler sa problème ba dootoo amati problème. kookoy moo njaay noo problème. Corso, corso, corso, corso, corso, corso, corso, jërëjëf merci beaucoup bu ñu jógee ci loolu mu liggéey ci réew mi ba am fu mu yegsi ndaxte li ñuy wax ni amaana moom mënu koo wax waaye ñun tamit ñi nga xam ne dañoo déplacé wu ngir ñëw il foog ñu xamal leen avant tout jëmm ji je pense que bu ñu demee ba ñu nommé ko meilleur entrepreneur en Afrique de l'Ouest meilleur entrepreneur ci liggéeyam bi nga xamné def nako non seulement waxuma la Sénégal rek mais ci 8 pays nek Afrique de l'Ouest yépp ñu némé ko ci war ko sargal le 14 octobre eh kon ñun kon ñun defuñu mauvais choix avant tout d'abord fi ñi fi tok ñépp ku ci nek responsable nga jour bi ma ko gisee mu wax la ko naw sëñ mbay mi ñëw toog wax ma nawaat ko je pense que yàlla moom moo defar ay mbiram mu nekk biddéew boo xam ne génn na ñu koy ñaanal yàlla cat ak làmmiñ yàlla aar ko sàmm ko ba ñu yegg pale ñu defar réew mi donc ci mbay mi Cheikh mi ngi ciy wax léegi léegi xam nga baykat yépp def nañ seen wareef te li ci war mooy nguur gi jàppale leen waaye tamit ñun ñi dëkk ci réew mi ñu consommer mbay réew mi xam nga tey jigéen ñi léegi moom lay wax parfois cheveux naturels yooyu kenn léttootul nguuka te nga mën a dem ci salon bi ñu létt la defal la say per yu rafet nga xam ne fii nga ko defee te doomu réew mi ñoo la koy defal man c'est rare man ma gis ko mu sol costume li ma koy gis yëpp ay tenue africain lay sol mm. ay tenue africain ndax man dama lay seetlu ci lu bëree bëri muy sol tenue africain donc liñ leen bëgg a xamal mooy dafa am loo xam ne bu génnee du moom du ñun yàlla la donc nañ ko téye bu baax a baax te bañ ko foyee projet bii man sama bakkan laa ci teg fowuma ci kafuma ci reewuma ci te duma ci ànd ak kuy fo kuy kaf ak kuy ree yàlla dimbale ñu nag ba ñun ñi nga xam ne ñoo ci ne ñu am ay mag yu mot mag sama xel dafa gën a dal ci kilifa gi sànq bi mu waxee ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax ndax lekete kese naxul béy politique du waxi kese politique du ñëw ne xaaral ma dem def li encaissé sama xaalis dem toog politicien bu njëkk Abdou Diouf ak dañu doon tooñe xaw ma monsieur Fora ak manam xaw ma lan madame Moulin Ablaye Wade ñëw tegal leen Gowana Macky Sall ñëw tegal leen émergence di leen di gëmloo émergence waaye émergence yi ci seen kër yi la yem ci seen kër yi foofu la yem dund gi jafe na njaboot gi sonn nañu tey dangay ngay ba ba weer ñu jox la sa xaalis nga dem fayoo ko location ñëw toog ñu lay woo guddi doo nangoo jël sa téléphone ñu lay yablu ci sa kanamu jabar ak sa njaboot Sénégal ay góor rekk a fi nekk mais dañoo amagul njiit boo xam ne góor la suur na démb tey soog a ñëw amagul ko donc li ñu fi waxtaane yépp tey kenn ku ci nekk na nga takk sa ndigg ñi takk seen sër dugg ci biir dëkk bi sensibiliser dëkk bi waxtaan ak waa dëkk bi ndax dëkk ci dëkk bi nag defar dëkk bi moo ko gën te bu ñu ne moom la jiital nañ ko ba pare toog di ko seetaan sénégalais c'est rare nga dégg mu la maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw rek la lay wax bu gisee en cas de yooyu boo gëstoo doo ko gis nan waxante dëgg te dëgg dafa jot ñu wax ko ndax réew mi bu fekkee ne ñun dañoo bëgg a changer réew mi am leader bu ñëw duñ bàyyi lépp ak leader bi parfois sax nga gis ay groupement de femmes yu war a ñëw waaye ñun bu ñu ñëwee lan la ñuy am lan la ñuy jox loolu dafa war a dakk politique du xaalis politique boole ay xel la weccante xalaat defar sa gox sa réew jëriñu ci nga jëriñu ci sa njaboot jëriñu ci mais ay naxe mbaay moo fi war a jeex bu njëkk politiciens yi ñoo doon naxe mais léegi population bi ñooy nax politiciens yi parrainage yi di nga gis ku ne fukki politiciens ak juróom te mu leer na la ne dañ la ne nit ku ci nekk benn nit nga am pare parrainé ragal ñeme yàlla weesuwul nga pare ne Jean pare na Paul pare na kële ak kële ak kële xaalis bañ lay jox bu fekkee tëdd nga nga lekk kook sa njaboot boo nelawee doo as gor doo gor dañoo toll ci foo xam ne sincérité ak dignité dafa war a fees ci kenn ku ci nekk ci ñun réew mi ñun ñoo ko war a mën a defal tànn suñu njiit bu baax ñu defar ko maa ngi sant ñépp di gërëm ñëpp di remercier nak wa Lambaye Lambaye sama papa dafa servir fofu en tant que médecin jaar ci dëkk yu bëree bëri looloo tax bima créé mouvement ñom ñu woma ma ñëw bima ñëwé ma dem fa ci turu yata say biñu toogee di waxtaan légui légui soxna astu mii la ma nañu wut ko xamné technicien la et je pense que loolu mbay xana loolu sa liggéey la technicien bo xamné pour forage dama wax ak ben kilifa ñu waxtaan ba paré mais dama sama dëkk forage ba fa né valeur 20 millions mo Yatta Saay moo ñu ko tabaxal donc kon nak comme wax na man j'ai fait 400 châteaux au Sénégal. 400. 700. lolu défa na dégg ngeen ko ci Lamine Samba sax des fois suy wax sama affaire danaan le roi du château donc. diggante boobu yëpp bari na dëkk yoo xam ni maa fa def château forage ak château d'eau waaw loolu nag moom moom ma mën a accédé ci mouvement national bi château d'eau bi gën a rëy Sénégal mooy bu nekk Mbour kooku sama élève moo ko liggéey donc ku ci yor mbirum ndox boo xam ni wala assainissement wala yu demee noonu am na foo xam ne bu nu bu nu gisee dinañ leen ci mën a jàppale ñi bokk ci mouvement bi nag ñi bokk ci li nga xam ni moom la ñuy def dinañ leen tàllal suñu loxo ci lépp nag ci ay financement yoo xam ne dinañ leen booleek ay nit yu leen jàppale parce que jàppalante la rek ndax mbir mi jàppalante la du question da nga wax wax bu am sens parce que nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci tiñ parce que am na ñoo xam ne bu nu àndeek ñun. du nu am doole mais ñun ñi nga xam ni ñoo bokk te nekk ay entrepreneur am loo xam ni lu ba lu bari du du Mamadou Yatassay moo ko mën a def président de la république sax mënul defal nit ñi lépp lu baax nit ñi dañuy jàpp fii ñiy jàpp fii ñun nag fi nu mën a jàpp dinañ ko jàpp dinañ jàppale jigéen ñi jàppale jeunes yi ci lépp lu nuy def man de ku ci yor sama numéro woo ma ci looy def dinaa la ci wuyu si parce que ci loolu laay yëngu waaw loolu moom xamal naa ko ñëpp waaw. merci kon nag dégg ngeen loolu mu wax kon soxna Astou wàllu satado boobu nga dégganteeg Amina moom jël na engagement bi donc yaakaar naa ne demaguñu fenn ñaari solution réglé wu na. Alima bu Tamba euh, maire bi jóge Lambaye boobu tamit réglé wu na. di ñaan yàlla nag yëf yi di réglé nii rek ba biir pale ñu réglé senegal yëpp yal na yàlla xeeb dolli et jërëjëf nañ ko gëm rek lépp dina baax bu soobee yàlla merci beaucoup. kooku mooy Ousmane Senghor di coordonnateur léegi nag na projecteur bi tàkk nanu projeté balaa le président di wax ñun ñëpp nañu demee ñu daal